mbokk yeeg xarit yi dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci yéenekaay ci xibaaru tàggat yaram yi tàmbalee ko ak sari yéenekaay mi xam ne le ne chamboulement bu mag am na ci Coupe d'Afrique des Nations bi ndax gaynde yi dootuñu mujjee dem ca Kigali yi ngir woyal fa li nga xam ne moom mooy seen wàccaay match bi nga xam ne moo waroon dox suñu diggante ak Rwanda ñu annulé ko plan waa Aliou Cissé yi daanaka dal di soppeeku ba tax suñu naataangooy di laaj naan ban équipe moo nar a doon partenaire Sénégal laata ñuy dem ca Bafoussam ba tey ci préparation boobu ci biir stade yéenekaay maître Augustin Senghor di définir beneen planning ngir gaynde yi ne regroupement bi démarré na dimba ak ñenn ci ay joueurs match amical international du am remise drapeau bi ñu ngi ko jàpp ñetti fan ci weeru janvier record yéenekaay ne gaynde yi fii ci Sénégal la ñuy amalee seen wàccaay duñu football match international te daañu dem ca Bafoussam ñenti fan ci weeru janvier réew mi quotidien sport plus ne Sénégal annulé na camp d'entraînement am Ismaïla Sarr moom ku moyul euh, du mën a bokk ci Coupe d'Afrique bi ndax Watford nee fin janvier rek lay mën a tàmbaliwaat li nga xam ne moom mooy entraînement l'observateur ne préparation gaynde yi dañu ko chamboulé ndax léegi Douala la ñuy dem ci place u Kigali cadre yu bëri nar a li nga xam ne moom mooy bés bañ leen di jébbal raay ak réew mi ca palais de la république ak ñum ci mën a doon ci biir l'info Khalilou Fadiga di wax ci participation Sénégal ci Coupe d'Afrique bi ne amatuñu excuse faaw rek ñu gagné Coupe d'Afrique bi laata loolu gaynde yi ñoom ña ngay des ca Angleterre record yéene kaay nañu Premier League Leicester Liverpool tay ji 20 heures Reds yi faaw rek ñu lolu ndam loolu mënta ñàkk Southampton mom di défier Tottenham bu nga xam jamono ci ma ngay doxal bu baax stade yene kay daal di wax ci Premier League bi ak match Liverpool Leicester bi ne Liverpool bu Sadio Mane am nañu ko am solo bo xam war nañu ko mën jouer ci sen match bobu léegi réew mi quotidien sport plus mom dafa wax ci coup bi nga xamné wa Espagne def nañu ko Samuel Eto'o président fédération camerounaise bu football bi nga xamné ne fisc bi ñokoy topé copar euh, yo xamné daf leen ko amel Balla Gaye nangu koppar yi jàmbur fas yéene ak nga xamné mom moy Bombardier ci biir sunu lamb moy xamné né Bombardier tu def dara mom moy mëne combat bi té dina ñëw ngir jël revanche am su neexee yalla ci biir l'info Balla Gaye di wax ci combat Bombardier né mom moy diriger combat bi té dina ko daan mom boy 52 bi ci les échos ci combat premier janvier bi ñu jëm mook B52 bu Mbour Balla Gaye 2 di artu Bombardier ne may diriger combat bi dina ko attaquer dina ko duma dinaa ko daan ne moom nekkul Balla Gaye 2 bi nga xam ne moom la Bombardier daanoon ay at ci ginnaaw ci biir sunu làmb Bombardier moom ne noppi na ngir daal di daan kii di Balla gay 2 ngir mën a dugg ci taarix bi sunu làmb ba tey fa la ñuy jeexalee wax ci beneen combat muy combat royal ba fas yéene am 13 mars diggante Modou Lo ak Ama Baldé Modou Lo li mu bëgg mooy janoo ak premier challenger am daan ko daal di doxal mbokki xarit yi lii lañ leen indiloon ci li gën a fës ci yéene kaay ci xibaaru tàggat yaram yi ak 13 TV jaajëfal leen bu baax ci teewlu gi di leen ñaanal kenn dalug jàmm.